asalaamaaleykum wa bi ñu ngi lay nuyu di la bu baax baax di dalal monsieur le ak euh, monsieur le ministre Serigne Issakha Diop mi nga xam ne mooy onage ak seen personel bi ñu ànd ak yépp kenn ku ci nekk ànd bi ñuy ñëw Serigne Mbaye Thiam di ñëw ànd na ak mbooleem personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi ak département yi ah, ak chef service technicien yi sëriñ bi bi ñëwee it ñu ngi ko gàttandu neuf heures quarante cinq fii ci Ila Touba bi ànd ak moom mu wër mboolem barab yi nga xam ne ñaari ndox yi am na fa muy ndoxam naan mi ak ndoxam taw mi ñu ngi njëkk dem Fatul Fata ci forage bi nga xam ne ñu ngi koy gas foofu mi sori na lool yaakaar naa ne lee ñu xam naa bu ñëwee ci moom ci boppam dana ci ñëw bi ñu fa jógee ñu ñëw ci buntu commune bi ci barab yooyu nga xam ne dañ ko dañ ca solutionné woon teg fa am machine ñëw nañ ndaamaatu ko ci forage boobu nga xam ne dafa paan tey jii waaye yàlla dogal na nag ñu ñëwee di ko solutionné matériel bi amoon na fi jox naa matériel bi offert ba ña nga di ko dépanne biñ fa jógee mu ñëw ci ndaamaato encore ci corniche bi foofu chinois yi doon raccordé nga xam ne mboolem ndox mi dañ jógee Kër Ñang ak Ngiraaneen foofu lay stationné te nekk ci corniche bi pour chinois yi raccordé ko mu mën a dugg ci réseau bi mag bi nga xam ne moom lañ doon defal bi mu fa jógee dem na ngelamu ñoom it solutionné nañ ko ndax ngelaw da doon pompe di yóbbu Kër Ñang waaye comme Kër Ñang day fees léeg-léeg ak di déborder maanaam mu contourner li daan jóge Ndaamaato ak liy jóge ngelaw lépp di def di pompe direct Kër Kàbbu ndax Kër Kàbbu moom yaakaar nañ ne du fees walla du du gaaw a fees loolu aussi mu def ko bi mu fa jógee nag lañ door a dem Baxdaad te forage naa ne fee ñetti fan ñeent daan la wax fi mu toll jóge fa dem Aliye bi mu fa jógee nag mu door a ñëw fii ne mi ngi ñëw rendre na compte ndax fi la a xëy njëkk a jaar jaar sëñ bi waaye mu ne woon na def tournée bi ba xam li xew moom ak directeur bi ak personnel am bi ànd nañ ko moom bu noppee bu lim teg bëtam bu ñëwee danga la ko wax te lu mu la ci wax dana wér loolu moo tax sëriñ bi daal loolu lañ yendoon ñu di ko sant di ko gërëm ci am yitte gi mu am nag ak mboolem ñoom ñëpp ci liggéey bi ak ni mu leen ñoree ndax moom ñëw na toujours mi ngi ñëw Mamour Diallo mi def naa ne ñaari weer yi cinq fois ñëw na fi keroog dimanche rek fi lay yenn yoo xam ne dafa départ ñëw xool wàññi ko ñibbi tey jii mu ñëwaat loolu daal la doon seereel ci liggéey bi di jox kàddu gi nag monsieur le mu wax li nga xam ne moom la gis ak moom fu la projet bi toll ci fii ak màggal bi. ñu ngi ñëw fii tey jii. Touba ci tànk yi tànk ziyaara tànk ziyaara Sëriñ Mountakha Mbacké jiite yoonu murit tànk sàkku ñaan tamit tànk jël ay tegtalam ay digalam ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu ñëwoon tey jii pour xayma ko saytu ko liggéey boobu aaju ci mbirum ndox ndox mi ñuy naan ak ndox taw ndox mi ñuy naan xam nañ ne fii am na fi ay forage yu ñu fi def nekk ni ci fanweeri forage ak juróom-ñaar suñu jubloo ci màggal gi forage yooyu yëpp ak château d'eau yu ñu àndal ak màndu ndox yu ñu àndal ak réseau yu koy indi ci kër gi OFOR gouvernement bi daf ko ci jox ay jumtukaay ak budget pour lépp loo xam ne lii gis na ko ci paan mu taataan ko répare ko depuis lu ëpp weer effort mi ngi loolu tamit ci yéene yokk ndox bi nga xam ne mooy ball ci muy ñetti forage ñu ci waroon a teg boo xam ne yi seeti nañ leen tey benn ci ñoom di Bagdad boo xam ne bii entreprise bi koy liggéey nee na fekk ay fan le trente incha allah yaakaar na ne dana pare yeneen forage yi biñ koy liggéey machine ñu am ci jafe-jafe ofor ci jafe-jafe mu am lu surux dugg ci biir teen bi moom la ñuy essayer génne fi mu nekk nii bi entreprise tey su fekkee ne li surux génn nañ ko fekk ñetti fan ñetti fan liggéey bi dana pare waaye xam nañ ne dëkk boo xam ne bii li nga xam ne moo fay teew li mu doom aadama su màggal jotee dana ful ñett wala ñeent wala ba juróom ci doomu aadama yi nga xam ne ñoo fay yeewoo xel mën naa jàpp ne li ñuy soxla ci limu liitaru ndox dana takku looloo tax ñu jël yeneen matukaay benn bi mooy jël ay camion citerne yoo xam ne yi danañ ci duy ndox ci forage yi xabaar bi di ko tasaare ci rajo yi fi nekk mooy képp koo xam ne kii am nga mbànd sa kër nga yëgal ko Ofor ñu duy mbànd mi lu jiitu màggal gi di ñëw nga xam ne dana wàññi jafe-jafe ndox yi màggal képp koo xam ne kii am nga mbànd sa kër mën ngaa jokkoo ak waa Ofor ñu jël ci kàddu ay gi ñu ñëw duyal la sa mbànn am na tamit ay bâche à yoo xam ne yi mooy ay citerne yu ndaw yu ñu yóbbu ci yenn kër ah loolu ci mbirum ndox mi li nga xam ne def nañ ko ci te maire bi Abdoul Ahad Ka dellu na ci beneen bi ñetti at ci ginnaaw sëriñ bi sëriñ Bassirou ci nga waxoon ne war nañoo waajal nawet ndaxte ñu dem màggal gi ci biir nawet lay nekk mën nañoo seede tamit ne depuis ñetti at président de la république assainissement Touba def ko ku yi bi ñu njëkk a def mooy Kër Ñang ñu yokk ci yi nga xam ne moo koy jógee fële Daaru Rahman ak foofu ba pare yokk xam ne moom lañ fay màq ci ndox loolu ñaari at ci ginnaaw lañ ko defoon liggéey bi ñu ko defee ñu gis ne Touba dafa yaatu li mu doomu aadama yi fi nekk tamit dafa takku war nañoo def programme bu rëy ci assainissement programme boobu nag pour def ko ci benn at dana diis torop moo tax ñu commencé ko daaw benn programme bu ñaar fukki milliards ak ñett def ko muy ay kano kano yoo xam ne def nañ ko fi ku ci teg sa bët gis na ne kano yooyu oto sax mën naa dugg ci biir di daw ñu ko defaree premier ministre ñëwoon na seet si ko saytu liggéey ñu gis ne bi nga xamee ne Kër Ñang yokk nañ ko muy dem Daaru Rahman ak of di waroon nañoo am feneen fu ñuy manque ndox mi pour yóbbu ci seen yitte ak seen dimbal ndimbalu sëriñ bi ñu jox ñu fële kër kàpp muy kàmb bu mag a mag boo xam ne bii lii mu liitaru ndox yu bari mën na faa def loolu nag moom la ñuy jëlee benn ay tuyau yu jógee Ngélémou di fa dem benn tuyau bi tuyau 400 la ñeenti téeméer ci yaatuwaay danañ fa def beneen boo xam ne bii dana ful boobu ñaar mu nekk juróom-ñetti téeméer ci yaatuwaay pour yóbbu ndox mi loolu ONAS mi ngi ciy liggéey direction prévention gestion inondation mi ngi ciy liggéey. brigade nationale sapeur pompier ñoom tamit ñu ngi ciy liggéey. yokk ci tamit fële ci maire bi comme ni ko maire waxee defoon nañ fa benn euh, pompe boo xam ne bii lu mat million ak genn wàllu liitaru ndox. mën na koo manq par waxtu biñ ko fa defee gis nañ ni amoon na njeexital bu mu am ndax ndox mi fa daan taa ñetti. balaa mu fay jógee ni ko maire waxee ci benn waxtu ñaari wax ndox ma daan na fa jóge waaye ñun ñëpp teg nañu suñu bët bi xame xamee ne yàq nañ ko looloo tax tey bi ma ñëwee ñu lancé fa benn opération boo ñaar fukki camion yuy pompe lañ fa yóbbu waaye camion yooyu lim bi nu mu mënoon a toll tamit mënula yem ak pompe bi ñu fa defoon di def mille cinq cent euh, million ak juróom mi ak genn wàllu euh, euh, litre par wax li nga xam ne daal moom laa mën a wax pour gàttal mooy doomu aadama mënu def dara loo xam ne lii dana matal yépp waaye li muy matal mooy yéeneem mooy yitteem mooy pas-pasam mooy taxawam yéene bi mi ngi fi pas-pas bi mi ngi fi def nañ ci yitte te service yépp ñu ngi ci liggéey guddeeg bëccëg tuyau boobu nga xam ne moom la ONAS def muy jóge Pofdy di dem ba Kër Kàddu muy ñetti kilomètre tuyau yi gën a cher ak yi gën a dëgër lañ fa def équipe bu ONAS biñ koy liggéey fukki fan la guddi ak bëccëg dañ ko doon liggéey loolu nag yitte ak pas-pas moo koy moo koy waral kon boog sëriñ bi daal loolu moom moo doon euh, saytu bi nga xam ne def nañ ko fi ak xayma bi nga xam ne def nañ ko ci liggéey bi di wax rek ne ni ma leen ko waxee bi may bi ñu ñëw tay jii taw bi moom moo ñu teeru mm-hmm. ay nee naa leen ministre bu yore mbirum ndox moom su ko taw teeroo wax dëgg yàlla ñëpp mën nañ koo comprendre loolu te bi ñu gisee prévision taw yi tamit fekk màggal gi maa ngi wax sànq gouverneur naan ko li mu wane mooy suñ ne suba lay màggal xëy na taw mën naa am ci bésu màggal gi tamit xëy na taw mën naa am sax li nga xam ne gis nañ ko na ci parce que yenn saa yi météo am na ñoo xam ne ñii fekk ay bés wala fukki fan ak juróom sax dañuy def euh, xayma bi soo moytul dimanche bi di ñëw rek la taw te mën naa am yeneen bés yëpp dana taw donc léegi daal loolu li koy taxa saafara nag mooy équipe yëpp taxaw di liggéey parce que ndox moom mu wàcc ci suuf kenn mënu koo euh, kenn mënu koo déggu waaye su ñëwee jumtukaay yi nga xam ne teg nañ ko ñu mën cee liggéey bu baax a ngi ñaan aussi ñu wax ak njaboot gi yëpp euh, que euh, ginnaaw bi ñu rafetloo yenn association yi ay xale ak ñeneen liggéey bi ñuy liggéey ci ci mbirum inondation yi ñu ngi dénk ñëpp rek alal ji nga xam ne ñun ñëpp ko bokk muy tuyaux yi muy li ñu fi def pour manque ndox mi kenn bañ ko yàq et ku gis ku koy yàq tamit nga wax ko service yi pour ñu mën koo tere mën koo aay ndaxte loolu nga xam ne def nañ ko diggante mairie ak Shell am na lu bare bare bare loo xam ne yàq na ko te eh, am nañu ay information tamit que ci mbirum ndox mi am na ñoo xam ne ñii xëj ne jóg nañu pour ci bésu màggal gi ñuy tëj ay robinet mag yi nekk ci yoon yi moom la ñuy wax val bu nekk mu teg fa policier wala gendarme mu koy garde waaye askan wi moom mën nañoo di euh, saytu loolu di ko xool képp koo xam ne kii jóg nga pour yàq dara ci nga xam ne ñu koy liggéey ñu ñëpp di bokk ko ñu mën ko wax fi ñu ko mën a waxee sëriñ bi loolu moom moo doon solo ñëw bi ñu fi ñëwoon tey jii di xayma di saytu tamit di ci profito tamit di rafetlu sa taxawaay ndaxte ci ñi ñuy yombal liggéey bi ci nga bokk ci sa xalaat ci sa farlu ak soññ bi nga xam ne yaa ngi koy soññ service yi bés bu jot looloo tax président ne nañu ñëw ñi nga xam ne ñoo yore comité d'organisation bi nga jiite ko ñu defal la situation bi fi mu toll ginnaaw bi nga xamee ne dem nañu ci sëriñ bi tamit jël ay tegtalam ak ay ay euh, tegtalam ak li nga xam ne moom la ñuy sant pour ñu def ko ci bés bi ma ànd ci ak sama naataangoo ministre Issakha Diop nga xam ne moom tamit biñ ko joxee pàcc biñ ko jox ci liggéey bi ba léegi lu dul benn lu dul ñaar ñoo na ko fii ci Touba di ko saytu liggéey bi gouverneur ak préfet ak service yëpp muy directeur général ONAS Mamour Diallo muy directeur général OFOR Mag Ndiaye muy directeur assainissement Omar Sène di directeur prévention gestion inondation euh, Madické Cissé ak aussi guleen ci ministère bi yore ndox mi ñu am a soxna boo xam ne bi moo moo jiite directeur direction hydraulique muy Ndeye Abibatou Lo mii nekk ingénieur hydraulique loolu tamit euh, mu nekk loo xam ne lii ñu koy rafetlu ci weer yi passé la ko loolu euh, ànd nañu ak ñëpp daal ñu leen di gërëm daal di leen sant euh, di wax ne wax dëgg yàlla ñi ngi rafet bu baax teru bi ngeen ñu teru maa ngi lay gërëm ci loolu dina ko sant ci turu sama collaborateur yi yëpp di ci profité tamit kontaan te fi trouvé ñoo fi fekkee sama sama wotare sama xarit Serigne Abdou Koudous Paquet Daaru Serigne Serigne Bassirou Serigne xam ne moom maa ngi jokkoo ak moom tamit dañuy taxaw bu baax ci liggéey bi ci mbirum ndox mi ñun ñaar di ci waxtaan bu bare bare jërëjëf maa ngi nuyu mbooloo mi teew ci jataay ak ñu mu àndal ñëpp te tudd seeni tur léegi ak kenn ku ci nekk cër ba mu yore liggéey bi di leen nuyoo itam ci turu sëriñ bi Cheikh Bachir moom fa nekkul xaaral ñu la xam ne moo jiite liggéeyu wàccaay yu màggalu Tuuba bi ci ndigal bu bi sëriñ Moustapha nga a taxaw bi ko ñaanal moom mi itam liggéey bi nga xam ne moom la ko yàlla teg ci ay woggam mu di ci gën a am ay ndam muy liggéey boo xam ne ci Mouhamadou Lamine Bara Moussa Fadel ci lañ ko tàmbali woon di ko ànd ak moom te ñu ñaan yàlla mu gën a yàgg yàlla mi nga xam ne def na ko te coobareem la ko def moom lañ koy ñaan mu gën a yàgg ministre bi nag dégg na ko li nga wax rek sëriñ bi dégg na ko waa comité bi dégg nañu ko ñi nga xam ni itam ñooy maj suuraa bi dégg nañu ko te mooy ñi ànd ci liggéey loolu nag li ñuy tekki rek mooy kenn ku nekk lépp loo nekk ku ñëw ànd ci ak yow nu mu ca mu defee noonu su fekkee na yow maanaam ak météo bi ñu ci yow loola dana la ko ndax ak jàmboom tàmbali la am waaye àgg na suñu borom moo ko yore li ñu leen lépp nag boo dem ñu ngi fi lim ak yi nga xam ne. maire bi ak naafeq te mooy li nga wax rek euh, fekk na am na lu ñu xam te loolu mooy a àggale yàlla ko àggale Sëriñ Tuuba bi nga xam ne lépp lu mu sumb sunu bi mu jógee ci tukkeem tedd nga xam ne mooy ñi ko gënoon a jege li muy wax ak ñoom bokk na ca lam leen wax lu mel ne lii ma la wax moo lu mu wax borom boobu defal ko te moom lu mu wax rek moom bëgg na naa loolu te xam am naa ñu ma ci ci loolu ci gëm boobu kon nag seen ma seen xel daal ci wàllu boobu yéen ñi nga xam ne yéen a koy taxawee yow mu nekk ci bopp bi tey bu loolu lépp jàllee itam nag fekk na ma xam ci yow loo xam ne ak ñenn ci yoo xam ne ñoom nga àndal liggéey bi loo xam ne pëstéef ak dogu te amaat ngay mi soxla dundale bi ñu gis dégg naa seen seen taxawaay moom mi nga xam ne bi lii nga xam ne bi gis ko ci taxawaay li ñu ñaan yàlla daal sëriñ Tuubaa moom bi nga xam ne moom fi tax a moom rek la ñuy te ngërëmam bu ko amee duutuñu ñàkk dara mu defal ko ñi nga xam ne loolu mu teg ko ci ndimbalu suñu borom nga xam ne képp ku mu dimbali tuutoo soxla ndimbalu keneen suñu borom defal ko moom loolu daal mooy li nga xam ne waroon nga xam ne def ngeen ko yaat ñi nga àndal ñëpp ba agsi fii ci kanam sëriñ bi ñooñu ñun ñëpp di sant ñëpp di gërëm wa salaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di teg nuyoo bi ci loxo bi Serigne mi yor ministre bi yor wàllu ndox mi ak assainissement di teg nuyoo bi ci loxoom mu jottali ko mboolem ñi ma àndal ñëpp te nekk ci agronome te buñ ci tuddee ministre Issakha Diop tudd ci directeur général ONAS Mamour Diallo tudd ci directeur général OFOR tudd ci yeneen directeurs yi nga xam ne tuddoo leen tudd ci gouverneur de la région de Diourbel tudd ci préfet bu Mbacké ak sous leen di nuyu baax a baax ci waajtaay yu mag yi nga xam ne ne dégg nañ kàddu yu bu baax a baax ci ni ngeen ko jottulee ñu di ko rafetlu bu baax xam naa dinaa ci dégg soxna xam naa sëriñ bi xaar moo tax wax ji du mën a gudd te li des ci tamit yàggut waaye si nga daal ka leeral na ma fi ngeen jaar lépp laata ngi agsi ci taxawaay yi nga xam ne def nañ ko ci dëkk bi ci wër barab yi nga xam ne mooy fi ami ak barab yi nga xam ne mooy forage si ji defar ci dëkk bi kon nag loolu dégg nañ ko bu baax jotaay bi nag tawféex ju rëy di ci am ndax ñi nga fi dajee ci jotaay bi dañ doon ci Sëriñ jàpp naa ne ku ne ci réew mi rek xam na ko mm. ku bokk ci yoon bi sax xam na ko mooy Sëriñ Bachir Mbacke bi Sëriñ ak maam Cheikh Ibrahima ak Cheikh Ibrahima Faty bi maam xam ngeen taxawaay bi mu amee ci liggéey bi moo taxal ma waxoon na ko na yëkkati gàtt yi jiital ak cant ma doon di leen sant ñëpp di seen taxawaay ci jàppale bi ñuy jàppale ci liggéey bi jotaay bi jotaay bi tawfeex la sëriñ Sidy Nar Diène di sëriñ sëtu Diène ñu di ko sant moom ci taxawaayam ndax lii mu def it mënuñ ko waaye lépp ànd ñu ci liggéey bi rek sëriñ Cheikh Bintou Fall sëtu sëriñ Sa Diène sëtu ak ak sëtu Cheikh Ibrahima Fall di ñëw kon tawfeex bi rëy la ci moom dolli na ma it njortu rafet ci ne li ñuy def Sëriñ Tuubaa nangu na ko te li ñuy def itam bëgguñ ci dara lu may ngërëmu Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi leen santaan bu baax di leen ndax ñoom ñaar ñi ko seen maam ñoom dañoo jaxasoo lool ndax kenn ndax liñ doon ci sëñ bi sëñ bi mas na leen dajale ci njaareem jël mbalaan mbuumu mbuumu mbuumu weex am na ko lu ñuul jël mbuum mu weex ëmb ko lu ñuul ak mbuum mu ñuul ëmb lu weex jël mbuum mu ñuul mi mi ëmb lu weex mi ëmb lu ñuul jox ko Seex eh, Ibra ne ko kii de daanaka bu fekk ba ma kenn xamagul bu ma kenn doon xam ma ne xam na jël mbuum mu weex mi ëmb lu ñuul daal koy jox jox Seex nekk moom mii itam de bi ma ñëpp xamee bu ma kenn doon xam ma ne xam ne waaye kenn mënu ma xam pour kon ñoom ñaar bi suñ Touba ñi bisee Touba Cheikh Issa moo ko yégal Cheikh Ibrahima kon seen diggante la lu xóot la kon ñu ngi sant bu baax a baax di di di di la dolleeg nuyoo Serigne Mbaye ci taxawaay bay yitte yi ngeen def ci liggéey bi mu agsi di leen jottali nuyoo Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne ci ndigalam lañ ci lañ ci toogee ci kilifteef ak kàddu ngeen wax ne taxawaay yi nga xam ne def ngeen ko ci liggéey bi yëg nañ sëriñ bi gis na ko te boo ko gisee rek mooy murid murid yëpp gis nañ ko ndax moom ak xamam ak lam cee jàpp rek mooy li ci am solo yëg nañ ne jéego yi ngeen ci def ndax bu dee ci ren jii. ndax li nga wax rek yàlla def na li ci ëpp maa ngi ñoo ko ànd ndax man la sëriñ bi daay yónni ci njiitu réew mi président Macky Sall ci assainissement ndax booba séentu woon nañ ne màggal gi dana demee nii moo tax ñu ko doon gàttal ko ndax day mel ne kon bu amutoon nag kon dana gën a métti waaye yàlla def na ngeen def ci projet boobu yi nga xam ne ci ngeen nekk di ko def te àggagul muy ñaar fukki milliards ñett yi ak ndoxal ba ci ren ji di faa ngeen ci jéego ndax juróomi forage def nañ ko ren ci màggal bi kon loolu bari na te daawit gasoon nañ ñeenti forage wala ñett bu kon loolu lépp di ay taxawaay yu yu rafet ndax boo xoolee ci wàllum assainissement ba mu fi toogee moom ba ba léegi ni li mu def ci biir dëkk bi mën na ñeent fukki milliards juróom bu ci forage it def lu mat fukki forage kon loolu ay jéego yu rëy kon nag sëriñ bi nag ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm ci loolu yi nga xam ne def na ko ci dëkku sëriñ Touba. Touba nag mooy dëkk boo xam ne kenn mënu koo nag ndax loo fi def rek wala loo xayma ba jàpp ne boo ko fi defee fii ak déwén dana am boo ci àggee boo ci defaataan ñett tamit lu tax mu doy loolu mooy li indi jafe kon xam nañ ne def ngeen ci yitte def ngeen ci jéego def ngeen ci taxawaay waaye dëkk bi moo rëy noonu. Tuubaa la ni muy màgge xel mënu ko xalaat ndax yi dëkk di ñuy wax nangami pour cent dañuy màgg Tuubaa boo ko doon xayma yeneen dëkk yi daanaka ñett yoo waral mu demee nii waaye nag kon dañuy ñaan rek jéego yi nga xam ne tàmbali ci mu àgg ba yeneen yu rëy yu bare topp ci ndax maa ngi ci doon waxtaan rek euh, directeur bi keroog muy wax ci wàllum assainissement lii tax Touba mën a àgg fa mu jëm daanaka dana jege téeméeri milliard juróom kon loolu mooy tax dëkk bi ci wàllu assainissement te loolu bokk sa ndoxum naa ni kon dëkk bi moo rëy day mel ne nit ñi dañoo jiite développement bi lu bare bëri boole nag bi nga xam ne am na ci dëkk bi daaw jotee digal nga def ci yitte jure ndax àggoon na foo xam ne demoon na ba tiital ñëpp waaye yéex a ba wàññi ko waaye nag ñu jël ndax am na ci côté yoo xam ñoom ñu ngi génn kër yi mu yokk rek ndax nab li seen daal ñu daa wax naa daaw bi ñu ci jaaxle mu ne nab moom mooy teen buy laajte rek li war a wax teen buy laajte rek noonu rek léeg-léeg benn di di leen sant bu baax ñaan màgg bi ñu ak ak ca te mboolem yi nga xam ne xalaat ngeen ko yéene ko def ko ci lépp yàlla suñu borom sottal ko ba mu àgg ni ko bëggee ñaan day ca ngërëmu sëriñ te bu ngeen ci dajee ngërëmu suñu day ca ngërëmu suñu Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulah